am nga

Wadiah. Ha? Wadiah City, Wadiah Tulai. Ha? Wadiah Tulai. Pala naik ah. ke? Senegal wala Guinea wala Senegal. Ah, Ban commune la? Angu Dakar on. Ko Dakar. Okay. Merci. Jaajëf. Thank you. Araña, araña. Araña, vero. Ya, yo. Brom tire ya non, ça va Ça va alhamdoulillah. Wéccal ma fi. Amul boobu amul. Amul. Amul. Waaw, yaa ngay taxaw de, waajal ahí está joder, tío, ahora. जाए तो गरब ही मुंबई नहीं छो खस एक फिर एक नंबर एक सुंगुप से क्रेन एक अपना पिसाब तो खरोटे pomaat yi fu ne la nit di jóge deru gaynde yeeg deru jaan lépp ngi salaamaaleykum Oh, daaka jaa ini nii waaw bidon nag doom bu góor la bidon doom bu góor la doom bu góor la fi bidon waaw mais

nah turu nah agak angin ini ya Itu. Ya. Jangan mayang kok. Yang saya resep gitu ini. Wow. Web om solo lagi. Sawah? Ada. Zander.

gis nga mana yaa ngi noonu mais góor ñaa koy gérer di di di togg togg yu neex waaw togg yu saf sax saf saf góor yaay gérer wàññi Por favor. waaw li si gën am solo nag mooy fii amul ay tabax doo xam am ku ñàkk waaw ñëpp a yam ñëpp a fi yam ñëpp a yam doo xam ñoo am ñii amul ñëpp ci ay mbaar lañ nekk tëdd ci suuf waaw gisoo salaamaaleykum da nga def nakam yaay togg fi yaa géré ya zay de waañ ba mu neex ba mu neex ha acha nga daal yëpp nduroo ñëpp benn lañ ziar bu am solo la fi ci Daaka Medina Gunaas ñoo ci bis yu mujj yi moo tax ñëpp ñu ngi takk seen dàll ni jënd ay sëri ca oto yaa ngi taxaw waaw ndax suba insha allah bu sëñ bi ñaanee rek ñëpp a yeewee kondo daa dee ñibbi moo taxit ñëpp a ngi waaj kon mu ngi noonu yéen ñi suivre ci Kaddu Jolof TV yéen woy di abonné partagé commenté noo leen gisee Daaka ziar bu am solo fii ci Médina Gounass Daaka nee na tàng na tàng na lool lool lool tàng na lool sax lool borom tiir daa mel ni jeexal nga de waxtoo dara de yow nii

rantai wajib? Kamu kabubesanga iwachi hamna nyandra nyi buga Kamu di suba inshallah nande nanti salaamaaleykum Assalamualaikum. Ya. Orang juga? moom ñu bees sama kayak si kanam ñu waajal ay salaam kan amin Thank you. All right.